daal di ñëw nag jàll ci seen xalaat. ñu ñëw kon ànd ak ñi ñu yéenoo sunu ay vidéo ci bésu tay bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaye groupe de médias ñu leen si aar bu baax. waaw de réew mu ne nii lu ma see lu moom lu ma see naqalu bëri na lool parce que ay nit. yàkkamte comme ça lu mel ne tey ci ñu ko sàcc ñëw di filmer wala lu dem accident yi ñëw di la filmer parce que fi mu ne doo ko seetlu man xamu si ban nekk ndax nit ñi am ñoo xamante ne moom daanaka moom aw xeet di ko teg maanaam di aw xeet di ko teg da mënta ñàkk parce que nit ñi am ñoo xam ne xeet rek moo leen mën a defar door rek lañ xam waaw fi ne fi mu koy defee noonu si population bi ñu toll noonu suñ ko dumee rek ndiggam ba ndiggam tàng ba yaram tàng si ëllëg dootu ko defati nuyu si bu baax. salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum waa Média. ñoo ngi leen nuyu di rafetlu opportunité bi ngeen di jox pour ñu participer di wax problème yi am suñu gox ko léegi man fi ma bëggoon commencé mooy fii si Kër Momar Sarr région de Louga. si benn village bi ñuy wax Ndibala boobu. loolu léegi ñun problème bi ñu am mooy problème courant. depuis que sur l'ère de Wade indi woon nañ fi benn tool ba nga xam ne un kilomètre carré la jël suñuy suuf suuf suñuy war a bay hmm, te pourtant courant bi ñëw na fi environ cinq cent mètres du village kon ñun war nañ ñu dimbalee lenn comme jël nañ suuf si ñu dimbalee ñu ñu jàllale courant bi ba fii quoi depuis très longtemps ñoo ngi def demande mais mënuñoo gis. wala benn suivi wala si cadre autorité yi problème bi bi ñu gën a sonal mooy boobu noonu. asalaamaaleykum waa Sen TV waa ñu ngi leen di ziare ah ñu am lu ñu naqari trop fii ci Guinée Conakry ndax dañoo jàpp ne ñun ay sénégalais lañ di ay citoyens di daan suñu doole. confinement bi teeñu fi dañu yaakaar ne nag xaalis bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko dajale du xaalisu politique. ba ñuy tànn seeni militant di leen ko jox ak ñun dul jox ñoo ngi ni joxuñu ñu dërëm bëgg boole ceeg ñu bëgg a ñibbi ñu bëgg ñoo defloo ay test yoo xam ne yu cher la tëj frontières yi loolu tamit lool moo ñu naqari loolu lañ bëgg a wax comme man maa ngi ni ñëw fi ñëwoon fi pour 15 jours kese maa ngi fi def 4 mois et quelques biñ demee demandé ci aide yi ñu doon joxe dañ nañu joxe nañ ko jox ko ñi leen neex kon nag nañ ñu ubbil frontière te bàyyi ñu bañ ñoo laaj xaalis ñu ñibbi ci suñuy famille. mu ngoog yéen itam mën ngeen def ni ñoom daal di ñu yónnee seen ay vidéo ci whatsapp bu groupe euh, des médias Mansour euh, dégg nga leen a ani lan nga leen di tontu. bon ku mujj kii li mu wax noonu toujours ma koy fàttali gouvernement bi. Euh, bu benn citoyen américain génne àdduna wala benn citoyen français wala benn marocain wala benn libanais. da ngay gis war ma bi ñu ko jox da ngay gis daraja bi ñu ko jox mais pourquoi pas citoyen sénégalais bu tàggatee ba fenn wax nañu fi mille sénégalais yi doon manifester Nouakchott Mauritanie gii nga xam boo yuuxoo ñu dégg la wax nañu yeneen Sénégal yi tagatémbe Maroc ay jeunes yi doon def GP bi dañu fa sans compter ñu nekk à fii Europe ak euh, États-Unis et cetera dem nañu ba pas plus tard que semaine bi passée ñu waroon tukki ak TAP. ñëw ba euh, aéroport Portugal ak ñëwoon ba Italie aéroport ba ñu ni leen Sénégal tëj na frontière am jawwam ñun ak ñoom ñu obligé wàññeekuwaat amatuñu fu ñu jëm yooyu di ay jafe-jafe yoo xam ne tey il est temps gouvernement bi jubluwaat bàyyi xel bu baax ci doomam yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew parce que am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy ko Guinée Conakry ak fii bu fa sénégalais nekkee ba fay jànkuwanteeg jafe-jafe waroon fa def 15 jours def fa 4 mois xamul lan la bàyyi ginnaawam jigéen ñi demoon jënd ay cuuf taga tembe Mali loolu dama ni état bi wax dëgg yàlla encore une fois bii mooy ñetteel bi may def cri de cœur di de